salaamaaleykum amis téléspectateurs Equivox TV salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo chaîne bu mag bi bandira bax bu la ren foofu mi salmini moon ko min Abdou Saliou Sey taalibe Serigne Saliou bi waaye tey dama dalal ndaanaan koo xamante ni partout au Sénégal kenn dootu ko présenté il se nomme Mr Edmo Edmo maa ngi lay char maa ngi lay delloo ziar bu baax di nuyu képp kuy euh, seetaan euh, Equivox TV donc mhm. leen wax ni tey man la ñu dalal wala boog maa leen dalal ci sama bërëb. de toute façon anyways en tout cas ñu ñoo na waxtaan tey waxtaan bu nar am solo bu soobee. Euh, macha allah euh, Edmo bala ñu commencé waxtaan bi Edmo ñu gis ni euh, Sénégal fan yi ñu génn amoon na ay jafe-jafe yoo xamante ni am na fi ah et ni yéen ay porteur de voix ngeen et que ni bi corona amee da ngeen a génn def benn genre film. wane li nga xamante ni maanaam mooy corona am na ci dëkk bi. def mm. sensibilisation et pourquoi vous les bala ngeen a wax rek askan wi tënk kii leen. xoqatal leen wala par exemple pousse leen pour ngeen door a wax. non kenn pousse ñu pour ñu wax ah. Euh, ñoom dañoo am seen avis rek mais euh, ba corona amee kenn pousse ñu pour ñu wax. Mhm. yeneen ak yeneen am na fi kenn pousse ñu pour ñu wax et ce qui s'est passé aussi ñoom boo seetloo seen discours mooy artistes yi waxul. la ñuy wax donc am na ay artistes yi wax. donc euh, et après bon nit ku nekk am nga choix wax wala bañ a wax. Mhm. mais ku ci nekk boo sentiree sa bopp que ni war nga mën a wax da ngay wax quoi. Mhm. xaaroo kenn wax loola. et képp ku doon wax boo seetloo ci ñu doon wax ci artistes yi waxagul. Mhm. wala nit euh, acteurs yi waxagul wala genre affaire yu mel noonu. Mhm. donc ce veut dire que am na ñoo xamante ni jël nañ devant bi commencé nañu wax. et je trouve que bu ñuy woote démocratie nañ ko dañ ko dañ ko jëfee. bu fekkee dañu dem xeex démocratie nañ bàyyi nit ki. mu am liberté. Mhm. wax wala bañ a wax. parce que loolu tam ci démocratie la bokk. la bokk <laughs> xeex na fekk ñun tam ñu koy dund quoi. waaw mais d' accord xam nga yéen buñ ne buñ rek dañuy jàpp ne artiste bi soit il est engagé ou il n' pas engagé. mais l'artiste est engagé par rapport à quelque chose ak lu mu munti doon ak lu mu munti doon. ak am nga engagement ci li ngeen. léegi seen engagement fan ngeen ko jëmee da ngeen ko jëmale ci euh, jàppale population bi ci li nga xamante ni maanaam mooy xeex seen i droit wala xeex li nga xamante ni moom mooy li doxal ci dëkk bi. xam nga boo nee yéen dafay large parce que mënu ma waxal yeneen. artistes mais yow man. ba affaire bi amee man samay samay samay réseau samay réseau laa am. dama mm-hmm. dem man balaa dara di xew sama premier poste bu ñu xoolee damaa wax. Mm-hmm. parce que dafa am lu ma métti dafa am lu ma gis ci dëkk bi affaire bi compliqué trop. Mm-hmm. ma gis ay doom sénégalais di dee ak yu mel noonu et automatiquement dama bind te ba sama xol laa bindee ma ma posté ko. xaaruma ci dara man. je ne suis même pas ce genre de personne buy def ci ay manifestation di filmer boppam wala genre affaire yu mel noonu mhm, mhm. donc euh, si je le fais je le fais pour moi-même je suis sincère avec moi-même j'essaie pas de montrer aux Sénégalais que damay def lii wala damay dem ci manifestation di filmer sama bopp wala di wane ni maa ngi mhm. je le fais pour moi avant qui que ce soit et il faut être sincère avec soi-même man loolu laa wax et loolu ça ça aussi quoi donc euh, ku nga nooy nooy nooy xeexee ku ci nekk am nga nooy manifester li ngay ci anam bi nga xamante ne si moo quitte ak sama conscience. Mhm. et keneen ku ko defee neneen tamit damay respecter ce choix quoi. ok mm. Edmo ñu fekk la sa bërëbu liggéeykaay. Mm. Euh, ñu ci bari yaakaar ni euh, artistes yi. Mm. en dehors de musique bi amuñu leneen lu ñuy def. moo ñu fekk la sa bërëbu liggéeykaay nga nga ngay job. en dehors de musique bi ak liggéey bi ngay def ni est-ce que Edmo mi ngi yëngu ci yeneen activités yoo xamante ni tey sénégalais mën euh, mhm. maa ngi liggéey ci entreprise bi nga xamante ne si man maa ko ubbi ak mhm. di ci liggéey. Euh, keneen koo xamante ni si moom ñoo ci nekk. Mhm. donc euh, muy sama cofondatrice Awa. Mhm. donc euh, ñuy liggéey e di job ci lu bari ah. mhm. Euh, tout ce qui est marketing digital tout ce qui est production musicale xam nga euh, identité visuelle mhm. euh, éducation aussi parce que dañuy dañuy jàngal ay xale tout ce qui est science technologie ingénierie art mathématique mhm. pour des enfants de cinq à dix huit ans mhm. donc ñu ngi ci affaire yu bari yoo xamante ne si dañ ci dañ ciy liggéey et c'est comme ça en fait nit ki waroo tënk sa bopp ci benn mbir kese quoi benn mbir ok mm. Edmond tay gis naa la fi en 2013 si je ne me trompe pas fekkee mm-hmm. jumuma ci chiffres yi mm-hmm. nga doon def tournée sama town show mm-hmm. ah, voilà mu doonoon tournée boo xamante ni que Sénégal rafet nuñ ko et moo tournée boobu lan moo ko sababoon waaw teew sa town show euh, lañ doon def et tournée boobu c'est très normal parce que je je venais tout juste de sortir soo bi nga xamante ni si moo taxoon gaa yi bëggoon ma et automatiquement euh, dama doon am ay demandes un peu partout et euh, ma ne sama gars yi écoutez amul lu ñuy xaar amuñu sponsor amuñu dara. Mhm. mais dañuy jug def ko. e on euh, ñu ñu jug ñu wër Sénégal. Mhm. une fois en 2013. ñu waraat ko deux fois en 2014. Euh, en 2015 on a fait quelques concerts. xam nga ci yenn dëkk yi. et après euh, ba tey jii nii de temps en temps ñu dem ci yenn régions yi di jouer quoi. am na loo xam ne c'est c'est le minimum par exemple dama doon dem euh, su ma demee concert ba ay Goudiri mhm. xam nga wala wala ba yenn région benn yenn village yi nekk waa Ziguinchor waa foofu yëpp <laughs> mhm. des fois da ngay nit day nekk Dakar ne la mais foofu foofu sori de ma ne ko mhm. mais yow man ma a dem ay états ay ay fii sori ma ne ko non artiste artiste la fépp fu ñu lay bégee demal foofu noonu nga partager loolu ak nit ñi c'est très important et on l'a fait et aujourd'hui euh, ñun bokk nañ ci ñi nga xamante ne si ñoo ko njëkk def mais sans sponsor quoi. ñu jug vraiment def ko parce que euh, détermination moo fi nekkoon. Mm-hmm. ak bëgg-bëgg bi. ok mm. mais Edmo euh, ngeen di génn sans mm. sponsor est-ce que tamit loolu yomb na en tant que qu'artiste parce que aussi ñi ngay àndal il faut que am lu nekk seen poste genre yu mel noonu. man bëriwul li sponsor dugg ci sama sama carrière musicale. lu waral loolu. ba c'est Dieu l'a voulu comme ça sama sponsor bi jiitu yàlla la. ok <laughs> moom mooy sama sponsor numéro un. Uh-huh. et réussite bi ma am ba fa ma toll nii mais vraiment. Mm-hmm. vraiment moom la. Mm-hmm. j'ai eu nag des sponsors. mais moom mooy ki nga xamante ne si vraiment. Mm-hmm. moom moo nekk euh, xam ci ginnaaw lépp quoi. et quand je dis soo déggee ma ne la bëriwuma ay sponsors. am naa nag quelques mais bëriwuma ay sponsors parce que. produit bëri génne naa ko. ok sans sponsor. ok c'est vrai. concert yu bëri def naa ko. Mm, sans sponsor sans sponsor. xam nga. Uh-huh. et loolu yëpp ngëm-ngëm. Mm-hmm. moo tax ma def ko. ok bu ñu demee ba xam et moo xamee ko yooyu noonu yëpp. Mm-hmm. waaw man sama sponsor yàlla la ak nit ñi. Mm-hmm. voilà. Euh, euh, pour pour fàttali kooku di Edmo nit ku xamante ni la ku gëm yàlla et que ku bëgg Seydina Mohamed. ci benn waayam boo xamante moom ma ko wax euh, sànq bi may ñëw le matin. mais Edmo. Mm. tey nga ni musique ngay def ah. mm. eh, ñu gis la récemment nga génn benn benn benn son bu nice bu tudd wu yaay ah. si je me mm. trompe euh, bi affaire bi cartonné def bëm. Edmo doon xaar ci yow booy ñëwaat nga def euh, euh, maanaam rab bu dëgër këcc ah. <laughs> mais déglu élève bàyyi kay bàyyi bu rëyee ñu doon xaar ñëwee nga def rab bu dëgër këcc quoi mais Edmo génn ak wu ak wu yaay quoi soo boo xamante ni bon da nga koy déglu tu as envie de da ngay am envie danser quoi. voilà Edmo lan moo inspiration bi fan la jógee. mais xam nga Edmo sax. mënuñ ko xaar ci rab bu dëgër parce que deful rab bu dëgër. waaw mais mais Edmo Edmo man gars yi gars faral di wax mooy Edmo sonwu loof lay def. waaw sonwu loolu faral di wax. gars sax dañuy jaawaleeg des fois ñi nga xamante moo di Cap-Vert Cap-Verdien yi. waaw mais man. dafa am loo xamante ne si man tëj tënkuma ci sama bopp. ok à mes euh, dama amoon benn émission ak Pape Sidi Fall. Mhm. ci benn rajo. mu mhm. euh, ne ko bro mu ne ma naa mu ne ko. dama bëgg mu leer bis ni ki tey. Mhm. balaa dara di xew balaa dara di xew. Mhm. tey mhm. dama bëgg Sénégal yëpp xam ni. man du ma je fais de la musique. et musique bi ma sentir laay def. ba ma ñëwee toog euh, un an ba sama sama dernier clip bi ma génnee avant Wuyaay. je l'ai sorti en février euh, muy bis bi. bis bi mooy waaw mooy mariage bi quoi. mu doon clip bu voilà voilà donc ma toog un an après quand je suis revenu. mais entre temps j'ai j'ai fait beaucoup de titres mhm. bon j'ai mhm. travaillé beaucoup de titres yoo xam ne mhm. génnagul mais ma xool wu yaay ma ne bon bi na neex na ma ñu liggéeyaat son bi ak ñoom Hakim xam nga euh, waa New ñoom ñoo def bi gars yëpp liggéey ci quoi franc mais ma ne ma ne son bi nii tey bu génnee xam nga dina cool trop déjà man dina ma neex et je sais que dina neex sénégalais yi et je l'ai sorti et c'est un son aujourd'hui que les gens ils mais dama leen bett parce que xaaruñu moom woon ci mbalax waaw man man xaaruma la woon foofu <laughs> parce que bon euh, bi ñu am na concert boo xamante ni gis nañ ci ci kaw scène yow ak Wally Ballago Seck mhm, si je me trompe pas mhm. nga nga def duo bu nice ak moom quoi mhm. man je me suis là-bas je me suis dit Edmo est-ce que bëggut a virer quoi dem ci mbalax bi à cent pour cent man du du uh-huh. parce que man comme je te dis je suis chanteur et je ne me pas être par exemple mbalaxmaan wala kuy def R&B kese wala non moi je fais une musique universelle une musique boo xamante ni si variée bu ci nekk ak yàlla may na ma talent bu bari hmm. yàlla may na ma ma mën ma mën woy ci style yooyu noonu yëpp du ma tënk sama bopp si mbalax quand même mën naa ko def benn yoon en passant hmm. deux fois vite fait xam nga mais duma ci dëkk mais est-ce que est-ce que bi ngay ñëw gisoo ni euh, mbal euh, rab bi dafa dafa dafa dafa dafa metti et que booy fi nekk dañu tàng te boo ñëwee foofu tam ñu booy wàcce la nga ni xaaral ma jéem a xool def de la musique quoi mais c'est comme je parce que bëri na sa ko fi def mais c'est comme je te dis moi je <laughs> j'étais même pas rappeur avant ok man ak ñi fi nekk ñëpp mhm. gisuma ci kenn ku ci nekk sama concurrent ok on fait de la musique diffère une musique différente mm -hmm. et j'apprécie énormément certains artistes mm -hmm. e man dama leen koy wax man du ma man artiste bu ma bu ma apprécier dama la koy wax. man du ma fi nekk di di ko téyel sama bopp parce que amalu ma benn solo. ma apprécier la di ko téyel sama bopp. ok moi je respecte le travail de certains. Mm-hmm. et je sais que c'est même pas du concurrence quoi. man ak mm-hmm. man ak ñoom parce que bokkuñu li ñuy def. Mm-hmm. tu vois mais comme je te dis j'aime ce que je vois mhm. et ce que euh, j'écoute actuellement mhm. ci musique surtout ci ñi may déglu les jeunes frères là ils sont magnifiques xam nga mhm. mais duñu menace pour man xam na mu la wax parce que je me dis que on a un style différent on a c'est c'est le même public mais ku public boobu noonu moo moo mën a déglu mën a déglu yeneen artistes yëpp. ok parce que ñoom ñooy jëm ci yi ñooy def man en fait peur de tout ça. ok musuma loolu quoi. kon kon instant bi pare na quoi pour pour def ak pour may yenn jeune talent yi fi nekk featuring wala. waaye euh, nga xamante ni ñoo nekk ci kaw. yàgg naa ko def. man bokk naa ci ñu bu ma bu fekkee ëpp ma. Mhm. featuring Sénégal Sénégal naa ci ñu ko ëpp de. Mhm. et 80% de mes featuring ce sont des artistes qui ne sont pas connus. waaw léegi lan moo ko waral dañu gis style ba nga xamante ni bon par exemple nekk ci yeneen artistes yi mu nekk ci Edmo pour ñu soxla ko woo ko def ak ñoom euh, featuring. wala peut être yaa ko demandé ñëpp la ñuy woo ah. mhm. peut du ñëpp laay d' accordal. parce que mhm. tamit euh, ak lu ma bëgg jàppale nit. na mhm. fekk au moins mu bañ a mu bañ a. mu mu nekk luy méngoog sama image tamit quoi. mais dinaa xool ko xam ne xam naa ni diw. Mm-hmm. kii nii. Mm-hmm. su ma ko su ma ci jàppee. Mm-hmm. dans quelques années dina dina li ma li ma en tout cas li ma def ci son noonu. dina ko mën a permettre mu nekk benn escalier pour mu pour mu jëm ci kaw quoi dama koy def. xam nga et loolu noonu je n'hésite pas mais su ma sentiree nit ki war na liggéeyaat dama la naan ah bro su ma sañoon. nga liggéeyaat nga xoolaat li xolaat lee xoolaat lee. Mhm. bis bu yàlla defee nag niveau bi nekk fi dinañ ko def. Euh, te yan link nga am ak euh, ñi nga xamante ni par exemple ñoom ñoo fi nekk maanaam les mbalaxmaan les rappeurs. link bu cool ak ñi nga xamante ni yàlla boole na ma ñoom. Mhm. mais du ñëpp laa xam. mais ñi ma ci xamanteel am na ay link yu nice ak ñoom. Mhm. xam nga ñenn ñi je les connais de no ñenn ñi je les connais euh, vite fait. ak ñoo xamante ne si yàlla def na ma ak ñoom dañuy wootante di waxtaan. li ci ëpp solo mooy esprit bu positive man lay doxee ci musique bi may def. et moom laay doxee ci lépp lu may def. Mhm. képp koo xamante ni si man ak yow neexoowuñu. Mhm. ça sa sent en fait parce que man du ma automatiquement da ngay écarté wu ma et on nga xamante ni si maag ñoom le courant passe bien. Mhm. on avance bien aussi. ok Edmo ñu gis la ci euh, at yi ñu génn. Hmm. Edmo am na benn évolution. Mm. maanaam ci ci côté làqatu bi parce que moo ñu dëkk parcelle nee nañ Edmo da nga doon romb ci mbedd yi fekk ko mu toog jàpp caayan ak gars yi wala naan café Edmo lan la parce que euh. xam nga tamit nit bu fekkee danga nekk ci benn domaine di fi di ci job mm. euh, bien vrai que sénégalais war nañ la gis. mais du mm. chaque instant sénégalais di la gis quoi. Edmo mm. bon je a dire que ni da nga la teewoon ci mbedd parcelles yi. <laughs> waaw léegi lan moo war a soit staff bi ñoo toog concerté wu ne Edmo bon dañ koy nëbbu dañ ci kanam parce que am na am nañ produit boo xamante ni waruñu ko bàyyi noonu muy génn à chaque instant. Edmo dafa amul temps rek <laughs> amul temps. Mm-hmm. Edmo dafa màgg Edmo dafa am responsabilité. ok ok Edmo dafa structuré wu. Mhm. Edmo dafa dafa dafay liggéey. te mhm. comme comme tu l'as dit sama bërëb liggéey kaa nga ma fekk. ok mënatoo ma fekk si mbeddu parcelle may doxantu. ok parce que damay damay xëy am bërëb bu ma dem. Mhm. lig daan sama doole su ma wàccee damay nekk ci sama musique. après dem tëddi nelaw. donc Edmo dafa am lu bëri loo xamante ne si dafa tax ba amatul temps parce que gis nga boo nekkee xale. temps bi day day day day genre da nga nekk waa da ngay def lu la booy màgg yenn yi di wàññeeku. Mhm. et quand bu ñuy màgg entourage day changé xam nga nit ñi tamit dañuy évoluer ku ci mhm. nekk ki day def nii ki def ne ki day takk jabar fii ki tukki fee ki xam nga. Mhm, donc y' a xamante ne day changé et nit ki tamit da ngay da ngay évoluer quoi. ok et tey ñun loolu la ñuy ñaan boo xoolee Edmond ne ah Edmond il que hier fii laa ko fekkoon tey fekk naa ko fële. donc évolution boobu man loolu laay ñaax bépp doomu aadama boo xamante ne si am na loo bëggal sa bopp. mais di la wax rek que ni. il faut chaque année ngay xoolaat sa bopp. Mhm. xool lan nga jot a def année passée. lan nga war a yokk ci sa life ngay jóg di dox ci loolu. parce que loolu moo fi nekk. Mhm. te yàlla yàlla bay sa tool. Mhm, dëgg la lépp lu nit ki lu jug ci sunu borom da ciy taxaw. da ciy taxaw mm. sunu borom da ciy taxaw mais Edmo euh, ñu gis ni yaa ngi yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci milieu cinématographique ah, mhm. euh, di génn ci yenn film yi mhm. link bi fan la fan la jógee da nga da nga toog centre ni carrément musique bi dama ko war a boole ak job bi dama ko boole boole ak euh, ak nekk acteur genre yu mel noonu mhm. wala peut-être staff bi ñoo concerté wala maison de production yi ñoom ñoo la woo pour nga ñëw jàpp ci combat bi tu sais man tous dans ma vie yàlla dafa def dama koy sant bu baax que tout est venu naturellement ok man dama ba ma nekkee booy doon def ay théâtre ba ma nekkee booy dama doon def doon def danse et dama doon def aussi chant. Mhm. Euh, dama mës a bëgg tout ce qui est film ak mel noonu. je je le disais même euh, man Pod et Marichou saison une. Mhm. def naa joué naa ci deux épisodes. ok euh, mais je savais que c'était pas c'était la bonne série. Mhm. et après yàlla def li gën. on a avancé avancé ba maîtresse ñëw. naturellement. Calista m'a appelé ki bind série bi. ki ko moom bien sûr. elle m'a appelé. elle m'a parlé. Mhm. ne ma que dafa am benn rôle bu nga xam ne dama ma rôle bi. Mhm. il m'a parlé d'un jeune maçon boo xam ne dafa am ambition musique. Mhm. je me suis man mii sama bopp dama ci gis sama bopp parce que ba ma nekkee booy. dama def maçonnerie. dama daan jàng vacances yi def ma de temps en temps jéem a am sama xaalis bopp ak yu demee fois ma jàppale sama yaay. ci dépense ak yooyu quoi. donc je me suis senti concerné ma ne dama koy def. on m'a pour un casting je parti. ba ma demee ci casting bi automatiquement je l'ai géré tranquille mhm. parce que xam naa ni am na talent boobu noonu je mhm. sais que acting mën naa ko. mën nga ko ok waaw mais teewul ba ma ci duggee dama gën a gëstu. Mhm. je dama doon dama doon laajte ay conseil dama doon laajte ay euh, suggestions par rapport ak yeneen acteurs yi nga xamante ñu ngi ci biir. parce que man j'étais artiste et acteur et eux ils sont que des acteurs. donc ñoom ñoo ma gën a maîtriser affaire boobu noonu. et ku ci mel ni euh, Kader Gadji mooy Biram Biram. mais kooku dafa ma jàppale lu bëri. parce que kooku chaque jour ba tey démb rek ñu ngi doon waxtaan. Mhm. genre chaque jour. Mhm. dañuy waxtaan dafa may woo këram kaay ñu lire scénario yi ñu ñu ñu ñu répété. parce que c'est c'est une personne boo xamante ne si mais je te jure que su ma amee évolution ci ci monde euh, cinématographique. daf ci mhm. jouer lu bëri. c'est mon sama waay la. et dafa nekk koo xamante ne si dafa daf ko daf ko wane en fait. dafa am yéene ci man. et a noonu laa amee yéene ci moom à chaque fois su ma ko gisee mu doxalee naka su dul noonu dama koy woo tegal ko. ok ñeneen ñëpp par contre samay samay collègues lañ. dañ koy dañuy partager affaire yu nice. Mhm. mais loolu noonu yëpp xam nga dama koy sant suñu borom. Mhm. parce que tey bu ko neexoon talent boobu dina ci man. Mhm, ok waaw comme li li li <laughs> li Pawlish di wax. <laughs> Pawlish <laughs> naan yàlla su ko neexoon mu def ma mu def ma solom mu def ma solom <laughs> donc voilà yàlla su ko neexoon mu def ma leneen. Mm-hmm. mais lii la ma yàlla def lii mooy sama life. ok c' est pas évident et c' pas du tout facile. mais dama koy dund quoi. c' est pas facile. Mm. Euh, mën nañ xaar moo ci yeneen. Euh, série wala ci yeneen film yi nga xamante ni dinañ gis beneen rôle boo xamante ni boo ko tëgg rôle surtout loolu rôle bi nga xamante parce que sa rôle bi dama dama sonn ci non sa rôle bi dafa sa rôle bi dafa yambare dama non sa rôle bi dafa yambare non xam nga bien vrai que affaire bi dafa kaay ma ah, loolu nga soxla yow loolu laa bëgg man bandi bu mag laa da ngay jox gain bi rôle bandi mu def ay noir fi ma ñëw taxaw joxe ay joxe ay directive gars yi gis ni mooy loolu wala nga jox ko tireur tireur d'élite sax wala benn benn tueur en série. xam nga loolu. ok ok ok <laughs> xam nga yooyu parce que ci ngay xamee gayan bi. Mhm. différence am ba bëgguma ñuy gis ni Edmo c'est un gars dañ koy jox rôle bu gentil. ok xam nga acteur da nga koy jël da nga koy génne ci zone de confort am. te bis bu loolu amee nga gis leneen parce que di nga gis bu waajur doy waar. <laughs> loolu loolu défi la quoi pour les pour les acteurs yi fi nekk quoi ngeen préparé parce que Edmo nee bu génnee ci beneen time di ngeen xam ni carrément moom moo fi nekk moom moo ko wax samay wax mais tey euh, acteurs yi bari loola ah. acteurs yi hmm. bari loolu nga nekk dans le milieu. Hmm. tey ñàkkul ni am nga ci koo xamante ni tey jii euh, mooy nekk moo nekk sa idole. acteur sénégalais yi. bon man dafa am ñaari acteurs yoo xam ne. ba mm-hmm. ñett yoo xamante ne si man je je bien ce qu'ils font. Mm-hmm. kenn ki de un Kader Gadji la. Kader mooy ki joué Biram. Biram. Mm-hmm. e euh, Wali. Babacar Wali moom tamit dama koy bëgg lu bari. xam nga Julo aussi. Euh, euh, Julo Julo. James James. lui aussi j'aime bien ce qu'il fait. tu vois boo xoolee. c'est des c'est des gens magnifiques. Mm mais dafa am koo xam ne il est extraordinaire. Mm-hmm. et euh, dama koy faral di wax. Mm-hmm. mais c'est un gas moi ba tey mun ma ko qualifier. Okay. et lui c'est Malcolm. Malcolm Malcolm moom moo nekk ci les quatre fantastiques moo nekk non kooku. premier jour ma ko gis one man show en fait dafa dafa dépassé gars yi parce que ba ma koy njëkk gis. one man show la doon def. Okay. et loolu ci Abba Show la woon mu ñëw toog mu xool gain bi mhm. il arrivait à faire rire les gens mais en faisant son truc en français mhm. fii Sénégal fii Sénégal oui c'est pas évident c'est pas évident xam nga mhm. euh, ñu jógee ci loolu ñu bokk maîtresse saison une ñoo ko defandoo mu andi fa beneen beneen kii koi beneen euh, posture mu andi fa beneen beneen affaire quoi ñu avancé tuuti euh, ma gis ko ci euh, euh, les quatre fantastiques ak beneen bi am na beneen euh, Virginie donc c'est un gars mm-hmm. mais il est il est il est extraordinaire mm-hmm. et humainement parlant mm-hmm. mais il est magnifique mais humainement parlant ñeneen ñi ma la citer ñëpp ils sont pareils te man côté humain bi dafa nekk loo xam ne dama ci bàyyi xel bu baax parce que nit boo nitee rek day feeñ ci lépp li ngay def c'est très important c'est très important. et il faut vraiment ñuy bàyyi xel ci côté boobu noonu. ok il faut vraiment ñuy bàyyi xel ci côté boobu ñi mu cité ñëpp ay ndaanaan lañ ñu leen di nuyu de passage. Mm. mais Edmond tey bu fekkee ni am na par exemple lenn loo xamante ni da nga koy wax gale yi lan lay doon parce que yéen da ngeen di wax ñu leen di dégg. Mm. et que ni wax dafa am solo trop. parce que mooy li sunu papa doon wax. Euh, waykat yëfu yàlla la yor. donc tey yéen lan mooy seen taxawaay ci li nga xamante ni jamono bu metti bi en dehors de corona en dehors li fi jot a xew jamono bu metti bi yéen artistes lan mooy doon seen taxawaay. man su ma amee lenn lu may wax euh, mooy ñu xam ni en dehors de artistes ak yëpp ay nit lañ te dañuy dee. Mhm. that's the only thing. mooy nañu bàyyi xel ci bés boobu. Mhm. ku sóoraale kuy dund. Mhm. chaque jour boo xëyee di xalaat dee rek. li ngay def di ko jëmee ci lu baax. ci lépp nag. Mhm. et nañuy nañuy bàyyi xel ci loolu ba pare ba bàyyi xel ci suñu moroom yi. Mhm. ku ci nekk amal yéene bu baax ci sa moroom gis nga dafa am ay base yoo xam ne. Mhm. tant nit mu ngi koy jëfee. lépp ci lépp lu mu dox ci life. day positif day positif. waaw ah, d'accord nañ. donc loolu dafa am solo. parce que démb rek maa ngi doon waxtaan ak kan Diallo. ñu doon def benn live Instagram. di wax ci live bi. di wax ci xam nga euh, tout ce qui est matériel. nit ñi mhm. niñ niñ ci niñ ci jëfroo quoi. Mhm. xam nga ak ni ñuy jëfandikoo yenn matériel yi. parce mhm. que matériel su ma nee xaalis ak lépp laay. succès ak lépp loo mun ti am. mais soit positif ci li def quoi. ok c'est très important c'est ñu gis ni euh, fan yu ñu génn sunu papa sunu xarit. Thione Seck génn àdduna. Euh, di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal. amiin amiin et moo yan relation nga amoon nag papa Thione. Ah, Papa Thione sama xarit la woon. Mhm. <laughs> Edmo Balago la ma doon woowee. Mhm. Papa Thione dama dama passé du temps ak moom këram. Mhm. ci benn projet bu ñëpp dégg. boo xamante ne si il a il a réuni toutes les générations. et man dama ñëwoon uniquement pour def samay samay son samay parti dem comme ñëpp. mais suñu courant dafa jàlloon trop maak moom. ba tout le temps dama doon nekk foofu. ok dama doon jug sama kër. dem këram. Mhm. fa toog ba ngoon. Mhm. ma ñibbi sama kër. ñibbi sa kër. donc euh, on a partagé lu bari. Mhm. il m'a beaucoup appris. l'humilité. Ah, il était pieux. te nit ku dëggula woon. direct. ok ba loolu sax moo doon déranger ñenn ñi. waaw parce okay. que c'est une per c'était une personne très direct bu lay waree wax dara. non du la mooy. et loolu mooy nit. man loolu laa gëm ci nit. mu nekk nit koo xam ne il était généreux. Mhm. il m'a mis en contact avec beaucoup de gens. man temps bi ma doon passé ak Papa Thione studio. lu ko mhm. sax passé waal Wally Seck. ok lu graaw laa la expliqué. Mhm. et loolu du man kese. mais tout le monde en fait. ku ñëw da lay waxtaan ak yow un jour ndeysaan il m'a dit Edmond bu la neexee ma defal le double ci studio bi. tu viens quand tu veux. tu enregistres ton album fais que tu veux. Je te jure. Mais il m'a ouvert ses portes. Et tout ça, c'était grâce à euh, Alioune Seck. Alioune Seck Alioune moom moo woo ne ma ah père bi dafay def lii. Mhm. te dama bëggoon vraiment nga ñëw participer ci. Mhm. ba mu ñëwee mais ils m'ont accueilli mais d'une manière extraordinaire. Mhm. et lui tey mënuma lu dul ñaanal ko. parce que il m'a lépp li waroon ci man daf ko def ci man. ok et il il m'a daf ma jëlee comme doom. Mhm. ma ne ma amoon concert Sorano ndeysaan anecdote ah. amoon concert Sorano. Mhm. <laughs> mu ne ma Edmo yaay def concert ma ne ko waaw. mu ne ma Edmo yow mënuma feesal de. <laughs> xam nga. tellement que musicalement parlant. on maa ngi moom c'était même plus musique. c'était humain o fait. ok mu ne ma yaa def Sorano euh, un jour muy génn gis sama affice ci panneau numérique yi quoi. rek mu woo téléphone. Edmo waaye yow man sa image laa gis ci panneau Edmo yow ndeke star nga <laughs> de xam mu la wax uh-huh. après noonu ma ne ko est-ce que xam nga sama concert da nga ciy ñëw mu ne ma uh-huh. man ma ne ko waaw waaw mu ne ma ah yow su concert boobu su ma fa ñëw dama fekk kenn et il est venu avec délégation la uh-huh. ñëwee ce jour-là je pouvais même pas chanter j'étais très ému et après loolu ba nii franchement on a de très bonnes relations te maa koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fi mu jógee. amiin di ko jaale toute sa famille tout le Sénégal. e di wax rek ni exemple la te nit ñi mm-hmm. dañoo war a roy ci moom. ci musique am mm-hmm. ak ci nitam. ok ah. voilà. voilà qui met fin à cette édition di leen ñaanal jàmm ju bare bari Abdou Saliou Sey la woon taalibe Serigne Saliou Mbacké bi di leen wax ni lavez les mains postez les masques parce que corona mi ngi fi jógeegu fi et moo lan ngay tëjee. <laughs> kon li mu wax rek lavez les mains. postez les fi ne en <laughs> di nuyu ñëpp di mhm. ziar ñëpp mhm. di leen wax ni kontaan naa ci ñëw bi mhm. kontaan naa ci interview bi c'était trop bien macha allah di ñaan jàmm am Sénégal amiin jeunes yi moytu leen bii loolu rek laay wax moytu leen bii dégg ngeen <laughs> dee leen ci utiliser ni ngeen ko war utiliser te bàyyi selfie ci mbedd yi da ngeen di accidenté baaxul <laughs> am leen jàmm en tout cas di nuyu Equivox di leen wax ni ñoom ñoo fi ne euh, béggee leen bu baax et allez suivre plus d'interviews sur Equivox et voilà Edmo moo fi jaaroon. Ah, et bro kontaan nañ ci moom mu doonoon daanaan doon koo xamante ni ak bëgg Seydina Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam waaye du ñu fàtte benn yoon ki nga xamante ni moo jaar fii kooku moo di Pape Gueye borom marché Colobane borom Touba Taïf Shop nee na ma booy seeti ndaanaan yi damay bëgg ngay sañse di leen dóor ay dóor yu metti tey grand bi mayu ma dara dama ko dama ko yóbbu fële ardo euh, kon jàmm ak bànneex ci yéen teraanga ci yéen ci yéen ci barke Serigne Saliou